tamit ñeen ñoo xam ne ngir ñu yàq ci seen ginaaw clavier yi ci la ñu nekk ñenn ñi moom la ñu def seen arme yéen kaay gi ne na am na ci personnalité bu mag boo xam ne maanaam addunaam bu yàqoo tey réseaux sociaux yi ñoo fa jaara en tout cas li am ba des sàll ku ko wala nga def ci attention musiba mën naa am lambaay mën naa ñaaw ndax ñi nga xam ne ñoo ci nekk tey yàq nit bëri na waaye tamit ñi nga xam ne ñoo ci loru tamit bëri na lool ci lu jëm ci réseaux sociaux yi yéen kaay gi di réew mi moo ci xëy def ci gëstu bu yaatoo yaatoo yéen kaay gi di source ñu xëy fekk fa Gabriel Kane Fofana muy wax ci mbiri Adji Sarr nee na Adji Sarr état bu Sénégal daf koo dumóoyu ci anam boo xam ne anam bu jéggi dayo la man Gabriel Kana bi ma demee ci ministre bi ñu dénk wallum jigéen ñi wax ko ngir mu jàppale aji Sarr daf ma wax lu leer nee na ma mbiri Adji Sarr duma ci dugg ndax dama am doom am borom kër a moom Gabriel Kana nee na état bu Sénégal jamono ji dafa dem ba néew doole ci wàllum politique digganteem ak Ousmane Sonko moo tax mu bëgg sulliwaat mbiri Adji Sarr kàddu yi Gabriel Kana la na état bu Sénégal bu demee ba xam ne jaaxle na rek maanaam néew na doole daale si jàmmarloo bi nga xam ne moom lay jàmmarloo Ousmane Sonko maanaam ñu bëgg a sulliwaat dossier Adji Sarr yéen a kaay gii di bés bi xëy diñu ñu assemblée nationale am na nag ak tolloole ci jëm ci li nga xam ne mooy poste yi ndax nag bu dee vice président yi benn bokk yaakaar dina am kaata yeewi wàllu am kaata bu dee secrétaire élu yi benn bokk yaakaar dina am trois yeewi am trois bu dee questeur benn bokk yaakaar un yeewi un bu dee commission parlementaire yi benn bokk yaakaar dina am sept yeewi wàllu a national bi en dina xumbuta ndagaana yéen a kaay gi ñu koy fekk fa Jean Rufin mi nga xam ne ay jamono nekkoon na ambassadeur bu France ci diwaanu Sénégal nee na ñii nga xam na ñoo fi nekk di songu Ousmane Sonko dinañu am ay jafe-jafe lool lool lool ngir nag sànq Ousmane Sonko ci lu jëm ci wàllum politique nee na gars yi dinañu si am ay jafe-jafe lool ngir sànq Ousmane Sonko ndax nag li nga xam ne moo ci am jamono ji Ousmane Sonko am na doole jëm ci wàllum politique waa mbedd mi ñoom seen bopp ñooy défendre Ousmane Sonko ko pare nag takku taxaw ngir jàmmarloo ak Macky Sall du samay kàddu damay nettali Jean Christophe Ruffin moo xamle yéen kaay gi de la Tribune nee na Karim Meïssa Wade bu bëggee ñibbi si si wax leen ko mu def ne Idrissa Seck ak Pape Diop maanaam dem fekki Macky Sall journal bi nee na ñi nga xam ne nag ñooy waa Qatar waa Qatar ñoom pare woon nañ ngir Karim Wade ñëw ci Sénégal waaye nag Macky moo lànk ba sa naaj waa lii kandaare bañ Karim Wade dugg ci réew waaye nag ñi nga xam na ñooy waa Qatar ñoom pare woon nañ ngir nag indiwaat Karim Wade waaye nag journal bi xëy na samp ab laaj nee na Macky Sall moom kan moo koy wax dëgg wax Macky Sall boppam ndax nag Macky Sall jamono ji mën nañoo wax ne ci wàllum politique dafa daal di nërmeelu Macky Sall ñi ko bàyyi bëri na loola askanu Sénégal du mooy yu ne Macky Sall te nag Macky dafa mel ni xamu ko loolee nag dañu ko war a xamal Macky Sall beneen bi nag ñi nga xam ne ñoo wër Macky Sall maanaam ñu jëmul fenn ñoo xam ne nag ñoo koy yàqala te nag Macky Sall nag dafa jara yedd yéen kaay gii de l'info ñi nga xam ne nag ñooy waa Pastef nee nañu gouvernement bu Sénégal nguur gi dañoo tiit ba maar day tale ci bi Ousmane Sonko waxee ne nag candidat la 2024 waaye nag nañu ko tàyyi mënuñu dara dara dara ci candidature Ousmane Sonko ñi nga xam ne nag ñooy waa Pastef nee na Macky Sall ak ñi nga xam ne ñoom la àndal doon nañ def réunion ca palais ba ngir nag lu jëm ci mbiri Ousmane Sonko waaye nag ñun pare nañu yéen kaay gi di réew ko di jeexee duñu xibaar naan ñu lu jëm ci inondation yi fekk nañ sa Pikine Technopole benn néew boo xam ne ci biir ndox mi lañ ko gisee yéene kaay gi di Direct News xëy dañu xibaar naan ñu màggalug Touba gi ak lu jëm ci wàllum nawet bi askan wi nga xam na ñoo yeewoo Touba jamono ji nag commencé nañoo xel ñaar di jaaxle ci lu jëm ci organisation màggalug Touba gi ak inondation yeeg nawet bi yéene kaay gi de Le Quotidien nee na état bu Sénégal jamono ji maanaam ñoo ngi wàcce ndax nag jàpp nañu ne weer août wi bala muy jeex ak septembre bi taw yu bare bare bari mën naa am te nag bu boobaa musiba mën naa am moo tax état bu Sénégal maanaam ma ngi koy waajal yéene kaay gi di 24 heures nee na ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci jëm ci wàllu wér gi yaram ge ñoom ànd gësam mer nañu ba maara day taali nee nañu samedi bii di ñëw danañu nag am marsa nee nañu jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñuy dund loolee ci boppam mënatuñu ko wëyee yéen kaay gi di direct news nee na ñi nga xam ne ñooy liggéey nag ca hôpital bu Ziguinchor ñoom tim jamono ji ñoo ngi ciy jafe ndax toog nañ toll ci juróom-ñaari weer yoo xam ne kenn fayu leen ñaari salaamaaleykum yéen kaay gi di vox populi Sidiya Ndiaye ak ñi nga xam ne ñoom la ànd la ñuy liggéey ci lu jëm ci wàllum collectivité territoriale yi ñoom nag nee nañu dinañu amal marche nationale amal grève ñetti fan la ko waral bokk na si jafe-jafe yi nga xamante ni ñoom tim ñoo ngi koy dund yéen kaay gii di laas nee na tong-tong suuf seddoo suuf pasar pasare suufa si ngeen di dégg ci diiwaanu ndakaaru mbay gay AMG tudd nañ ko see waaye tamit Mamour Diallo tudd nañ ko see maanaam ñi nga xam ne daal ñooy tong-tongee foncier bi ci ndakaaru mbay gay AMG ak Mamour Diallo seen tur dugg na ci yéen kaay gii di bés xëy duñu xibaar naan ñu jamono ji soble si nga xam ne dafa yokk ba maara day